voilà donc cinq minutes laay def ci laaj bi bu dee am na son rek wax leen ma parce que branchement yi ma ci def batri bi dafa xawoon plat léegi wax leen ma rek boo leen amee son ne leen c'est bien rek comme ça ma tàmbali. la son bi rek son bi laa bëgg <clears throat> boo leen ko amee ne leen c'est bon voilà donc son bi baax na je pense ay dellu sin caan mi ngi def kër voilà donc gars yi damay ñëw rek pour euh, jox leen benn update bu ndaw maanaam mise à jour euh, boo leen seetaanee sànq defe naa di ngeen gis ne avocat Sonko yi bind nañu te aussi suñu frère euh, ci jot na aussi gis nañu sànq Sadikh Top def na live bu am solo en wolof pour vraiment farampàccil maanaam wax leen exactement li nga xam ne moom mooy condition wu président Sonko président Sonko nag fi ñuy wax ak yéen nii ñu ne ñu mi ngi ci état bu bu ñu ne état bu critique maanaam fukki fan ak juróom-ñaar a ngi nii tey doomu aadama boobu dugalul lekk ci biir gémmiñam malgré les euh, les mal les les mauvaises informations yi ngeen di jot muy jóge ci ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci côté nguur gi Ousmane Sonko tegul benn lekk ci làmmiñam fukki fan ak juróom-ñaar ngi nii li ci gën a dangereux nag dañ ko doon defal perfusion léegi perfusion boobu bañ na ko juróomi fan a ngi nii président Ousmane Sonko nanguwul kenn laal yaramam walla dugal ci dara donc ce qui veut dire que lim ñu doon wax toujours ne bind naa sama testament ci ñi koy underestimé maanaam ñi koy sous-estimé nañu xam ne président Ousmane Sonko fi mu ne nii mi ngi résister ak gouvernement Sénégal ñu ngi ci bras de fer bu metti parce que ñun ñëpp xam nañu du layam layame que le gouvernement du Sénégal lii nga seen tappale yi nga xam ne ñaari at lay jël pour ñu jéem koo dérouler moom la ñu jéem a dérouler ay tappale ci ñaar ñetti weer voire ñeenti weer ndax gis nañu ne campagne électorale moom jot na ba pare léegi tappale boo xam ne ñoom même bu doon tappale bu no bu ñu bëgg a normalal sax dina jël ñaari at ba ñetti at waaye ñu bëgg ko parax paraxe yëpp jàllale ko fii ak ñaari weer ñetti weer mooy kon condamné président Ousmane Sonko xañ ko élection xañ ko lii xañ ko la la jël ak xagam yelleefam lépp nag teg ko ci ay fen ndax ñun ñëpp gis nañu ñi boom nit ñi ci Sénégal ndax mënuloo ma ne juróom fukki nit ba juróom benn fukki nit ba juróom ñaar fukki nit ba juróom ñett fukki nit génn nañu àddina te amul benn investigation amul benn nit buñ ci topp amul benn doomu aadama bu ñu topp gis nañu ay policier flagrant ñu yor seen fetal di boom ay doomu sénégalais gis nañu ay gendarme flagrant délit ñu jël seen ay fetal di boom doomu sénégalais gis nañu également ay nervi yu génnee seen ay fetal bëccëgu ndarkam boom ay sénégalais vidéo yi mi ngeeg ñun vidéo yaa ngi CPI vidéo yi ngi partout dans le monde loolu nekkatul sax débat mais lii débat bi le président Ousmane Sonko ba léegi mi ngi ci kaabu urgent fukki fan ak juróom-ñaar a ngi nii lekkul fukki fan ak juróom-ñaar a ngi nii mi ci situation bu jafe juróomi fan a ngi nii nag juróomi fan ak léegi le président Ousmane Sonko nangootul benn perfusion ñu dugal ko ci yaramam donc je pense que ñun sénégalais yi war nañoo jël suñu ay responsabilité voilà lépp lu ko war nag moom suñu diggante ak moom def na ko le président Ousmane Sonko lépp lu war digganteem ak sénégalais yi def na ko wàccoo nañu amelatuñu dara voilà président Ousmane Sonko viam mi ngi en danger parce que ci loxo cartel bi mu ne lii du gouvernement lii cartel la ba ay bandi la ñoo ko yor donc ay bandi bu ñu yoree sa nit ku baax je pense que am nañu responsabilité malgré les mille deux cents arrestations malgré les cinquante ou soixante meurtres meurtres les sénégalais on a une responsabilité en face l'histoire il faut ñu bàyyi loolu xel sénégalais yi dañu am responsabilité à fa à en face l'histoire génn nañu xeex nañoo ñoom gis naa ne fan yi lu bari nag lu bari nag sénégalais yi wàññi nañ ko ci seen xëtër mën na am coono la man na am tuuti découragement la parce que loolu yëpp dafa ànd ak àddina àddina doomu aadama rek boo dëkkee sa kër ngay lekk ka naan di yéeg di nelaw ak yeewu yenn saa yi nga am découragement tuuti ci sa yaram c'est c'est très très normal but it's time il est temps ñu jàmmarloo ak la peur il faut qu'on fait face à cette peur qui est dans nos cœurs pour ñu xam ne seule la lutte libère le président Ousmane Sonko est en danger et il nous a tout donné lépp loo xam ne mi war na suñu digganteeg moom def na ko avocat mi nee nañu lekkul 17 jours nee nañu nangootul benn soin pour ñu laal ko parce que xam na ne ñii mu ko sekkal jël bakkanu nit ak naan ndox la ñu yemale donc nangootul benn doomu aadama laal ko ñun déjà diaspora bi woo nañu sénégalais yëpp ne wax nañu leen ko nee nañu képp ku bëgg a participer nga wax ñu woo nañu ñëpp pour dem Washington devant l'ambassade c'est samedi samedi bii di ñëw incha allahu rabbi muy le 19 dañu invité sénégalais yëpp devant l'ambassade du Sénégal à Washington buñ fa jogee ñu dem Maison Blanche loolu samedi bii la incha allahu rabbi samedi bii tous les sénégalais de la diaspora tous les sénégalais d'Amérique vous êtes invités devant l'ambassade du Sénégal à Washington DC pour ñu ñaxtu ñu wane ñaawteef bi nga xam ne moom la nekk di def di ko teg di ko jëmale ci kaw président Ousmane Sonko te il ne le mérite pas si quelqu'un mérite d'être respecté c'est le président Ousmane Sonko si quelqu'un mérite d'être protégé c'est le président Ousmane Sonko seule la lutte libère na beneen information bi jot nañu ay information que Cheikh Bara Ndiaye ñoom dafa paralysé loolu la ñu jot ci ay information que Cheikh Bara Ndiaye maanaam ñoom nee nañu dafa paralysé ci li ñu jot parce que comme ni ngeen ko xamee mi ngi woon ci grève de la faim ay comment lu ne lu ne xew na ci donc Cheikh Bara Ndiaye ci information yi ñu jot nee ñu dafa paralysé Marème fay Sall mooy responsable Bokar Seydou Yàgg muy DG wu police moom mooy responsable ndax ñoom ñoo jël ay bandi jël leen ñuy dem ci dëkk bi di boom ay nit kii nga xam ne aussi moom mooy Bara Sankare moom mooy responsable kii nga xam ne moom mooy Macky Sall moom mooy responsable Cheikh baara Ndiaye mu ngi ci situation bu extraordinaire fi may wax ak yenn nii Cheikh baara Ndiaye régime Macky Sall bii mi ngi boom sénégalais yi régime Macky Sall bii mi ngi arrêté sénégalais yi injustement dégg naa sax ba ñu ne dañu ragal a am cérémonie officielle fi nga xam ne moom mooy màggalu Touba ndax xale yi bu ñu demee amal ko fa xale yi dinañu yuuxu sonko sonko si dëkk bu sell bi te xale yi am ngeen ci droit nag préparer leen ko fépp fu waay dajaloo turu Ousmane Sonko il faut adduna bi yëpp dégg ko turu Ousmane Sonko fépp fu ay nit dajaloo di wax am ngeen droit yuuxu fa turu Ousmane Sonko parce que doomu jàmbur la ñu ngi ko jàpp injustement bëgg a faat bakkanam ñëpp na cell noppi donc fépp foo leen dem am ngeen droit yuuxu fa turu Ousmane Sonko loolu moo leen tiital ñoom ndax gis ngeen démb xaw ma ngaaka blende la xaw ma ak ak ban woykat ba ñu génnee dem fa micro xale yuuxu nañu Ousmane Sonko ba àdduna bi yëpp dégg ko fépp fooleen leen mën a dem ci àdduna bi yuuxu leen turu Ousmane Sonko boo leen nekkee ndaje moo leen mën a dugg ci àdduna bi yuuxu leen usmaan Sonko foo leen mën a jaar yuuxu leen turu Ousmane Sonko parce que Sénégal nekkatul état de droit état de délinquant la doon léegi cartel la ay ay bandi ñoo ko jiite ay jaaykatu drogue ay reykatu nit ay naankatu sangara ñoo jiite gouvernement Sénégal te jaral na leen lu ne nag teg nañ ci seen bakkan jaral na leen lu ne léegi beneen cas bi Bocar Seydou yàgg le DG de la police nationale Bocar Seydou yàgg dama bëgg nag yéen ñi nekk Amérique ngeen déglu ma bu baax a baax a baax a baax a baax pour ngeen jàppale ma ci boo Bocar Seydou yàgg nee nañu mi ngi fii ci Amérique Bocar Seydou yàgg nee nañu vendredi bii passé la ñëw vol Air Sénégal ñu ngi jóge Dakar à quatre heures du matin mu dugg ci Amérique Bokar Seydou Yàgg DG police mi ngi fii ci Amérique ci famille ci soxnaam nee nañu nag soxna si New Jersey la dëkk wóoruma ñu ngi koy wër kenn ku nekk ci yéen ku xam adresse bi nañu ko wax sénégalais yépp ñu dem daje fa Bokar du Yàgg le DG de la polis de Macky Sall ñu ne mi ngi fii ci Amérique ñu ne vendredi la fi dugg si vendredi la dugg si fii ci Amérique vendredi la dugg si fii ci Amérique Bokar Seydou Yàgg le DG de la polis ñu ne mi ngi Amérique nañu fexe ngir yàlla ngeen xamal ñu adresse fi mu nekk ñun ñëpp ñu dem foofu manifesté wu ci buntu këram pour dëkkandoo jabaram yi xam ne naankatu deret moo nekk fii ci Amérique yor fi soxna yor fi ay doom di rey suñu ay doom di rey suñu ay soxna di tëj suñu ay doom loolu bëgg naa képp ku nekk ci yéen lii fexe lépp loo leen man nañ ci fexe ñu xam ko jabar ji keneme la sant keneme yéen ñi am ay xarit yu sant Keneme Amérique bu leen ci boole sentiment papaam député la woon dégg naa Keneme député bu sant Keneme s'il vous plaît def leen man loo man pour ñu dem ñu manifester këram lépp loo man ñu dem ñu manifester ci buntu këram voilà nous on n'est pas des personnes qui sont violentes mais dinañu dem li nekk ci ñun suñu naqar bi ñu ñaxtu ko buntu këram incha allahu rabbi buntu këram te duñ fa bouger tant que détenu yi bàyyi ñu leen Sénégal ñoom ñëpp nag parce que fii moom Amérique la fii moom yenn banditisme yi du jàll fii fii du fi jàll banditisme yi du jàll fii nañu fexe lépp lu ñu man dégg naa boo Bocar Seydou yàgg le DG de la police est ici aux États-Unis d'Amérique donc maa ngi ñaan ñëpp képp ku xam fu mu dëkk képp ku xam fu mu dëkk vraiment fexe leen lépp loo leen man ñu jot ci information boobu ndax ñu ngi rey suñu doom yi ñu ngi gaañ suñu doom yi ñu ngi tëj suñu doom yi injustement président Ousmane Sonko 17 jours de grève de la faim nangootul sax soin lépp lu ko jot Macky Sall yow ak sa waa kër yéen a responsable ndax yéen léegi ay naankatu deret ngeen ñu denk leen suñu dëkk bi pour ngeen yor ko ngeen nekk ay bandi nekk ay sanguinaire di rey doomu aadama yi et on ne l'acceptera pas gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamaaleykum wa rahmatullah barakaatu dinaa ñëwaat nag ci kanam ci live bi dinaa ñëwaat fii ñaari waxtu ci kanam dinaa ñëwaat ma amal leen Lamine Ndiaye muy responsable jeune Pastef bi nekk Amérique pour ñu wax leen ci suñu voyage bi ñuy amal Washington samedi bi comme ça waay waay lu waay mën a def pour bokk ci participer ñi mën a dem dem ñi mënul dem dugal xaalis ndax soxla nañu xaalis vraiment pour mën a paasal ñëpp képp ku mën a dem mën a dem voilà donc Lamine Ndiaye incha allah maak moom